asalaamaaleykum internetu Sénégal tey nag ba tey doxantu tabaski bii ñoo seet si siir acteur mais duñ ñëw wax ak moom ci affaire acteur ay yooyu noonu beneen domaine am bi muy liggéey di ci xarmat ma bàyyi ko mu nuyoo fansam yi koy suivre. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum waa ñëpp ñuy seetaan Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax di nuyu seen mbokki internet yi di nuyu sama fans yi bu baax a baax a baax. d'accord alors si ñu seet la veillu tabaski voilà ñaw yi nu mu demee ñëpp xam nañu dangay ngay ñaw euh, nu mu demee instant bi activité yi ba sonnoo rek. non instant bi moom nelaw amatul nelaw amatul sama côté nelaw amatul sama collaborateur yu may liggéeyal ñooy sama teer yi ñoom dama leen yërëm sax ndax dafa metti parce que sénégalais dafa bëgg sañse dafa bëgg solu moment bi moom ku nekk bëgg nga jot ñawam. mais heureusement que jël nañu suñu précaution yëpp ba bëgg finir ñaw yëpp à temps suñu clientèle yëpp ñëpp ku nekk jot sa ñaw à temps nga solu bésu tabaski nga kontaan bu baax a baax a baax. d'accord ak Covid bi nan nga demee ak ñaw bi instant bi est-ce que. non mhm. wu leen gars yi ñëw nañu. <laughs> non ñu ngi sant yàlla nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que man soo xoolee sama majorité clientèle lu si ëpp. nekk ñu sax Sénégal à l'étranger nañu nekk dama leen di ñawal en gros ci façon taille bu nekk ñoom ñuy jël di jaayaat pratiquement te soo xoolee depuis Covid bi bu mu amee ba léegi peut-être que problème bu ñu amoon mooy ci côté envoi bi parce que am na benn moment ñu tajoon frontières yi mais macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax tabaski bi clientèle bi tamit clients yi ñëw nañ répondre parce que sénégalais mooy nit koo xam ne dañu bëgg lu baax tey jii di nga gis koo xam ne même su poche bi demeewul noonu sax mais bés ba su jotee soo ko gisee da ngay foog ne millionnaire la wala milliardaire la lépp si bëgg lu baax la bokk moo tax clients yi ñëw nañu te ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. kañ nga commencé monter sa atelier di commencé di di nekk ci ñaam. man nag maa ngi si couture je pense depuis diggante 2012 2013. d'accord kon yàgg nga def événement. waaw yàgg naa yàgg naa yàgg naa yàggul parce que début bi mhm. atelier amul woon maa ngi débuté ak benn machine ak sama benn tailleur bu nekk fii si ginnaaw boo xam ne que depuis le début daf ma gëm mhm. mi ngi tudd laay nañ mhm. débuté mu doon metti parfois parfois ñu doon wari ji ay broderie ba ville ak suñu benn machine ñuy soox parfois nit yi di ñu fausser de gauche à droite yenn tailleur yi ñuy embauché en freelance et tout tey jii ñu dem ba monter atelier. Mhm. am suñu boutique sant yàlla bu baax a baax. Mhm. Euh, Siir ku ko xam xam ne ko ci sañse lu muy lu muy lu muy sol defe naa moom lay ñawal euh, clientèle am. Mhm. donc xaw na saf loxo nag te dégg naa ko boo amul ay cent mille deux cent mille doo ñëw doo sol. non non non non non lu ma wax rek gis nga nit. Euh, ku bëgg lu baax. foog nga ñeme sa poche. Mhm. ba pare nit ku nekk soo buggee noppalu rek da ngay xam loo tollool. Mhm. tey jii man su fekkee xam naa ne que tissu ak ñaw bi lépp mille francs mooy sama capital intérêt réuni mu bëgg a jënd yére su ma demee damay xool yére boo xam ne moom méngoog mille francs mhm. tey ji sama poche su fekkee 200000 moo si nekk ma am yéene bëgg sol yére 200000 soo demee mun nga jënd yére 200000 mais. tey jii nit soo defee loo mënoo rek sonn tey jii mënoo yor benn 7000 francs wala 2000 francs sa poche bëgg yore 200000 wala yore 250000 c'est impossible. Mhm. Mhm. d'accord léegi yow ñan ngay ñawal góor kese jigéen parce que lu bari ci yow la gis euh, modèle yi donc. Mhm. man nag particularité bu ma lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma ëpp lu may ñaw mooy ay ñaw góor. ñaw jigéen góor ñi dañoo hmm. góor ñi. ñu dañu am na góor yu bëgg lu baax nag man mhm. moom sama clientèle dañu bëgg lu baax mhm. dañu bëgg lu baax trop te ñu macha allah mhm. dañu bëgg lu baax te particularité ñawal góor tamit doo sonn parce que góor ñu moom ils sont pragmatiques wute nañoo jigéen yi nga xam ne sama mbokk jigéen sama yaay yi sama sœur yi nga xam ne parfois dañu compliqué non ñaw bi lii kii bi lii vu que man moom je suis dama dama dama fort de par moo caractère moo tax ma préféré ñëwal góor nga xam ne que avec ñoom day ça sera beaucoup plus facile dañuy passer seen commande nga ñëw livrer leen ko wax du am problème du am mooy loolu. d'accord mm. góor ñi seen ñëw en général ñu gën a bëgg di ñawlu lu mm. par exemple c'est tabaski bi lan la ñu gën a jël pour lu ko. soo xoolee nag tendance bi dafa commencer changer depuis quelque temps. Mm-hmm. parce que au auparavant soo doon xool lu ëpp suñ nee tabaski rek. nit yi lu ñuy njëkk xalaat mooy njaw bazin wala jesner nañuy mhm. njëkk mais léegi te nit yi xamuñu woon ne am na ay tissu super cent wala super 140 wala ay tissu coton yoo xam ne parfois sax wala ay brocart yoo xam ne ñoo gën a cher jesner ñu bëri maîtriser wuñ ko ba tey mhm. te tissu yooyu soo ko solee tàngaay du la sonal rafet na te ku nekk mun nga ko sol partout foo mun ci dem mun nga ko sol moo tax ñu bëri léegi commencé nañu comprendre loolu moo tax tendance bu ñu am année bi ñu bëri lu si ëpp ñawlootuñu sax jasner mm. dañuy ñawlu si tissu super cent yi. ak bi aussi. ak tàngaay bi surtout super 140 yi brocart yi da ngay gis cachemire yi. soo xoolee loolu lañ si gën a ñëw ak surtout trois pièces xam nga Sénégal dafa bëgg ndaanaanu. waaw korité en général dañ koy. oyofal mais ay nañ ko mën def trois abdou ñetti abdou yi ak yooyu noonu est-ce que duñu changer un peu coupe bi def ko tradi moderne wala. si léegi gis nga ñaw bi. Mm-hmm. parfois dama koy assimiler su ma koy comparer dama koy comparer tamit cinéma bi ma nekk. dafa doon milieu yoo dafa doon deux milieu yoo xam ne que soo deful nànk rek. Mhm. gars yi raw la lu tax gars yi raw la. Mhm. dafa doon ñaari millier yoo xam ne day avancer vite fait moog milieu multimédia ñoo yem. tey jii da ngay toog léegi nga ne caméra bi moo génn nga ñu teg si deux semaines wala. un mois après beneen caméra bu bees génnaat affaire yi dafa gaaw léegi tey jii nit yi ñëpp xam lu baax ba pare mode développé na ba façon développement boo xam ne que les tenues sont devenues tradi moderne kii di tradi moderne dañuy jël tey jii ancien ancienne tenue yu ñu doon ñaw tey jii boole ko benn touche de modernité boo xam ne que de l'Occident la jóge mm-hmm. nga xam ba nga xam ne que di nga ko mën a sol dem liggéey ji même su feet bi jàllee di nga ko mën a sol fu ne di nga ko mën a sol soo amee réunion wala ngay voyager fu nekk ba pare tu vas te sentir à l'aise dedans parce que problème bu doon am auparavant ak suñu tenue traditionnelle yi mooy c'était trop encombrant tey jii da nga koy sol tàngaay di la rey wala doo mën a doo mën a dem ak moom fenn mais léegi soo xoolee c'est beaucoup plus moderne parce que ay coupe yu moderne nañ koy gën a def souvent comme ay kubu costume. ngeen def <laughs> pantalon yi seere da ngay gis koo xam ne day day day day bon style xale yu góor yi da ngay gis ko uh-huh. sew. Uh-huh. sol bu xat boo xam ne moom du génnee modèle bi quoi <laughs> léegi yéen pourquoi loolu slim yi tamit foo ñu wax ci de façon lan kan moo war a sol ak ñan la adapté wul bu nekk. Oh. Ah. en fait loolu question de style question de style. Mm-hmm. am na ñoo xam ne que ils son habitués di sol ay pantalon yoo xam ne dañu large am na ñoo xam ne ils sont habitués di sol ay pantalon yoo xam ne dañu étroit ku nekk ak sa style la. Mhm. parfois mun nga ñëwal nit mu ne la no bëgguma pantalon bi serré parce que mag la kilifa la. Mhm. et nga ñawal tey jii benn jeune boo xam ne que gis na moroomam yi ce qui est à la mode chez les jeunes mooy pantalon boo xam ne day nekk sur mesure du serré day yem. et moo tax question de goût la question de style la. mais pas trop serré aussi trop serré moom man je le conseille à personne mhm. parce que day dem ba day dénaturer yëre bi sax côté classe u yëre bi dootul dootu ko génnee. Mhm. alors góor ñi dañu leen xamoon ci couleur yu sombre couleur yoo xam ne c'est pas flashy mais mm. léegi dañuy commencé di ñaw lu tenue yi en rose en en vert est-ce que est-ce que loolu tamit tendance la. Mm, je dirais que man góor mën na sol couleur bu nekk. xam naa ah. dina jaaxal ñu bëri. Mm. góor man maa ko wax góor mun na sol couleur bu nekk. Mhm. tout dépend tey jii modèle bi nuñ ko ñawee ak ban type de modèle la parce que am na ay modèles yoo xam ne tey ji soo ko gisee rek di nga xam ne lii ay modèles yu jigéen la. Mhm. tu mais tey jii comme mun nga jël benn super sang bu rose wala jesner bu rose nga ñaw ko coupe simple mun nga ko ñaw coupe boo xam ne de telle sorte que nit ki su ko gisee rose bi du nekk en évidence day góore quoi ba pare tamit yow mi koy sol tamit. nga góore <laughs> waaw surtout waaw yaa saa aussi yaa saa aussi parce que tey jii doo jël benn yére bu rose ba pare mm-hmm. jox ko une personne boo xam ne dafa xaw a efféminé et tout tu mm-hmm. après day gën a si moom mais euh, soo ko joxee ku góore mu sol ko mm-hmm. mu doon yére góor nga leer na ko coupe bi bu góor la après ça passe <laughs> d'accord alors ñu tëj parenthèse boobu ñëw ci yow looy passé sa tabaski te est-ce que nga jënd xar sax ay amagoo jabar de genre <laughs> yi dañ ñaan non man aw ma jabar duma jënd xar. <laughs> non non non non man nag du ma du ma du ma raisonné noonu. Mhm. parce que souvent lu may wax man damay sant yàlla bu baax a baax parce que lu may wax souvent dama am chance su génn dem à l'étranger. Mhm. te bu ma njëkkee dem à l'étranger lu ma njëkk choqué. mooy da ngay gis benn par exemple ma jox exemple benn pays da ngay dem benn Allemagne. nga dem Allemagne nga gis benn allemand boo xam ne ko xoolal barbe bi sax na sikkim bi soo ko gisee mhm. nga gis la personne elle est tellement responsable da nga naan non kii c'est c'est c'est c'est c'est impossible mënul nekk mhm. soo ko joxee xoolee danga koy jox dans les dans les dans les dans les quarantaines wala dans les cinquantaines soo ko laajee âge am su la nee benn dix huit ans wala dix neuf ans la am mhm. yow da nga naan non waat lii est-ce que c'est possible te kooku am 18 ans 19 ans mi ngi ak appartement mi ngi ak këram mi ngi ak oto mi ngi ak foyer mi ngi doomam ñun Sénégal dañu am tendance tey jii tànk génnoo sa kër famille wala tànk duggoo si benn tranche d'âge bi rek pour ñun psychologiquement ay xale lañu ba léegi quoi. Mm-hmm. te pour man loolu dafa war a dañ nekk xale taxul la doon responsable nekk xale l'essentiel na nga ko mën rek soo demee ba mun ko te ça soit nga nekk célibataire wala nga nekk xale. jëndal xar nga tabaski li nga war a def seen biir kër def ko li nga war a defal sa proche ak sa njaboot def ko. mooy yoon parce que soo ko defee rek di nga gis ne yàlla dalay yokk. Mhm. sa premier xar ñaata nga ko jëndee woon. njëkk jënd <laughs> dem dara sama sama premier xar nag je dirais du dara laa ko jëndee. Mhm. dama amoon benn copain buy jaay boo xam ne que dama ko yeb yeb yeb comme pas possible. Mhm. xar bi soo ko gisee xar bi mat na valeur deux cent mille francs mais maag moom dañuy yabante ba. dama ko sonal xoolal ma ne ko saay jox ma xar bi rek jaay man daal xoolal waxaale naa waxaale waxaale waxaale ba mu jaay ma xar bi cent vingt cinq mille <laughs> mais boobu ba léegi daal ba léegi mu ngi may toppee xaalis xar bi <laughs> nee na ma dama ko teg dil quoi nee na ma restant bi moom <laughs> na mais restant bi naa ko jox sa premier xar boo ko jëndee cent vingt cinq mille xanaa léegi moom xaru un man nag je contre peut-être que je suis pas contre sax parce que nit ku nekk ak sa niveau fu mu toll tey jii soo yoree ay milliards sa biir compte su la neexee jëndal xaru 100 million parce que yaa ko liggéey mhm. tu mais man boog tollooguma fu may jëndee xaru 1 million wala même su ma fa tolloo man je préfère su ma doon jënd xaru 1 million mhm. jël ko jënd si xar yu bëri jox sama am di jàmm yi ak ñu amul que may jënd xaru 1 million parce que je trouve que tey jii soo deful naa ngi c'est c'est c'est du tamit si benn côté mhm. parce que loo xam ne que benn deux heures de temps wala benn quatre heures de temps un million yooyu tey ji nga jëloon ko dimbali si néew di doole yi jënd si benn dix xar moo ma gënaloon ngay jël benn un million di ko dugal si si si xar mais tamit contre ma ñu koy def. Mhm. parce que question de pouvoir d'achat la parfois nit dina def dara nga naan lii dafa bëri fekk dafa fekk yoroo ko rek wala sa pouvoir d'achat tollul foofu. d'accord alors tabaski bi jour bi xam nañ yow teyoon nga da ñaw da ngay veiller. Mhm. <laughs> est-ce que jour tabaski di nga am di xar bi fees beeg bokk ci. affaire yooyu est-ce <laughs> man nag je suis trop familial xam nga man genre daf ma neex. Mhm. man je suis je suis trop familial moo tax maa ngi sant yàlla bu baax bu ma bu dundee biir Sénégal parce que xam naa ne Europe mënu ma fa dund. Mhm. Euh, Amérique mënu ma fa dund parce que j'aime les trucs familial man ay tabaski ay korité famille bi dajee ñuy fees fii ñuy demalante baalante ak ay màggal. Mhm. ay gàmmu man j'aime j'aime ces trucs familial moo tax lu ma sonn sonn. jour tabaski hmm, damay def sama short bu ndaw. Mhm. accompagner la famille sax yow. yii man man man fu ma jaar bëri booy parcelle la booy mhm. Sicap la booy Grand Dakar la. Mhm. su ma su su mënul fees ñu ñu ñu laaj ma ko. alors ban ban partie la gën a neex ci xar bi nag. ko étalé ba pare yow lakk bi a moom du ko bokk kenn wala. boobu dama ko doon sama yaay ndax njóobeen la. njóobeen bu mag la ndawal rek la bëgg <laughs> mais côtelette non côteletu xar jaral na ma xeex <laughs> du doo ko bàyyee kenn <laughs> du ma ko bàyyee kenn côtelette moo si dàkkal alors si ngoon gi ñu dem ci tabaski bi si ngoon gi en général doo ne ma Euh, xama clients yi ñëpp nañ ñëw jël si seen ñaw yi du moins mhm. nañ ñëw jël si seen ñaw yow nag léegi lan ngay lan ngay ndaalaanoo lan ngay sengse parce que après après fan si ñoo xam ne acteur lañ nga xamee dañuy xaar siir lu mu war a sol mhm. ah pour euh, tabaski bi donc yow lan lan lan nga prévoir ren non prévoir naa tenue bu simple <laughs> dama prévoir tenue bu simple bu nice parce que pour man euh, la classe se trouve dans la simplicité mhm. tey jii tenue boo xam ne daal xam naa ne sama gars yi képp ku ko gis daal di nga di nga di nga apprécier si tenue bi parce que dama jël yu mesure ñëw tenue bi à l' avance. un mois avant tabaski bi daal tenue bi pare na ba ñu teg ko. ñu ko wan. ah yii non cat <laughs> si. lu ma lu ma sama gars yi di wax si ginnaaw nee nañ ma. yow sa tenue yi cat da siy dugg parce que à chaque fois ñu may ñawal yére mhm. foog mu lakk wala. tubéy bi def lii wala kii lii genre yooyu mais à chaque fois su yëre bi pare ba ma sol ko mhm. ah da ngay da ngay da ngay gisaat après gars yi di ko reproduire sama sama sama mbokku teer yi et j'en suis fier en fait ah. Ah, sàcc modèle yi est-ce que tamit non man man au contraire man jàppee moo ko sàcc modèle mhm. parce que dama mës a dund benn affaire bu ma touché mooy lan dama mës a dem rond point Sandaga bu ma demee rond point Sandaga benn tailleur ñëw approché ma man maa ngi koy xaw a daw nii sax parce que nu mu doon ñëwee ak élan ñëw rek kott ma seere ma mu ne ko lan la mu ne ma saay man dama la bëgg man tëyër laa te mënuma la wax ñaata laa liggéey ci sa image parce que à chaque fois sama client yu bëri dañ may andil say modèle yoo xam ne da nga ko sol nee ma man ko modelu lu siir bi laa bëgg nga ñawal ma ko mhm. en fait avec du recul après man je je je suis fier de en fait parce que gis nga nit ku nekk mhm. sa wërsëg soo ko waree lekk rek da koy lekk kenn mënu si dara te pour man c'est une fierté nga def dara nit reproduire ko parce que sa veut dire que yow li nga def baax na te nit bul iñaane sa morom parce que sa wërsëg soo ko waree lekk rek danga koy lekk gis nga asamaan si rey na peeru rëy boo xam ne ko ku nekk mun nga siggi xool te doo déranger sa morom moo tax c'est une fierté man ma créer modèle wala defar benn modèle nit yi jël ko reproduire ko aw ma si benn benn benn problème mhm. alors euh, ñu jeexalee looy tàggatoo bi baalu àq déjà nit ñi man de maa ngi baalu ak ñëpp. est-ce que ñëpp sax jot nañ seen ñëw déjà. yii non am na ñu jotagul. <laughs> am na ñu jotagul instant yi prolongation la nekk prolongation. <laughs> ba daw di fay sa portable. yii yàlla tere parce que man moom bëgg naa moom suñu mhm. nee suba la temps si. Hmm? Mhm. ñëpp jot seen ñaw ba sama collaborateur yi may liggéeyal nag man ak ñëpp nekk dem sa kër mën a passé fête bi. Mhm. ak sa famille parce que man. Euh, euh, bugguma souvent dama koy gis souvent comme atelier tailleur yi nga xam ne que moment wu julli bi sax day jot gars yi di julli ñoom ñu continuer di ñëw man mm-hmm. je je préfère pas man je préfère tey jii julli bi suy jot fête bi jot ku nekk dem toog sa biir kër passé ko ak sa famille parce que c'est des moments yoo xam ne que ay benn yoon lay am si at bi mm-hmm. benn yoon lay am ci at bi moo tax di baalu àq ñëpp hmm, di wax ne que ñëpp baal naa leen yàlla nañu yàlla boole baal ah, ñu teewe ko ay déwén yu baree bëri yàlla yokk xéwal bi yokk mën-mën bi may ñu sutura may ñu gudd fan mhm. Sénégal naat képp ku am problème mu mu faju problème ah. mu Covid kat lañu am moom mais <laughs> nit yi en nit yi dañu sonn si Covid. Ah. Covid sonal nañu. Mhm. Covid si boppam moo ñu sonal. Mhm. Covid moom xolal na na dem fu mu xam rek. na dem fu mu xam <laughs> waaw. di baal waa mhm. ak continuer waaw di di di remercier waa Sénégal bu baax a baax parce que maa ngi leen di suivre bu baax gis naa liggéey bi ngeen di def te liggéey la boo xam ne que c'est c'est à saluer mhm. di leen encourager bu baax bu baax di di leen wax nag ah c'est pas facile c'est pas facile tey jii fii nga nekk dans le milieu de la communication fii ici au Sénégal parce que di nga dégg lu nekk mhm. di nga gis lu nekk mais di leen encourager bu baax di la di la di la félicité yow Aida sama yaay parce que sama ah. turandoo yaay nga yow moom sama def naa la sama séddoo <laughs> ah di di félicité sama copain mi nekk si caméra bi di ko bigam bu baax a baax <laughs> alors xam naa dinañ ñëwaat waxtaan nag ci acteur bi nag pas de souci amul benn problème <laughs> incha allah bu événement bi passé yëpp incha allah ñu kalewaat beneen show ça me fera plaisir yow tamit merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup à